salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. mbokk Sénégal yi nuyu naa leen di leen siyaar Medoune Diop wa Tawasaw Bil Haq ku dugg nga partagé bu baax baax a baax live mi ngeen partagé ko quoi xam naa ne du waaye ak tiitaange moo ma jàpp ci sunu doom yi. maa ngi wax ak bépp parent maa ngi wax bépp baay képp koo xam ni baay nga nga am doom képp koo xam ni yaay nga nga yor sa doom maa ngi wax ak yéen ci ngeen jàppale seen doom yi. sinon ku toppul ku jàppalewul sa njaboot sa njaboot dina sànku sa njaboot dina torox te responsabilité bi yàlla dina la ko laaj ndax yàlla moo ko wax ci alquran ba yaa ayyuha allazina amanu yéen gëm ñi nga xam ne gëm nañ ku anfusakum wa ahlikum naara fegal leen seen bopp safara njëkk ngeen yaaru njëkk baax njëkk ngeen fegal ko seeni doom réseaux sociaux bi gis nañ ni mu demee ay xale yu wuñu seen awra ngeen jox seen doomi ay téléphone amut lenn luñ ci war a def ci lu baax ci loo xamante ni si lu leen di dimbali seen diine ak lu leen di dimbali seen àdduna mais ñu nekk ci ci lu bon rek ni ko Moula Morgan waxee woon naan TikTok bi xale yi lu ci baree bari lu njariñ lu am njariñ juñ ko ci wax toppandoo benn musicien xam nga affaire yi ñàkk fayda rek waxuñu lenn loo xam ne lu amal njaañu la gis ngeen responsabilité bii waajur wu nekk jàppal ni bokk nga ci peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya yar leen seen doom ngir yàlla képp ku ci yarul sa dom topu dunduk àdduna gi rek ngeen jàpp ni mbir mi ci na la yam wallaahi bu ngeen deewee di ngeen ko rëccu di ngeen am problème àdduna di ngeen am problème àllaaxira ndax nit ku yarul sa dom. lii nii rek ci ñàkk rek la bokk gis ngeen kii motom bii yor ko fii yokk volume bi mu foor a foor bu rombee déranger ñëpp ci ñàkk yaru la gàddu ak nit ñi yar leen seen doom yi te am ngeen solution yi ngeen yaree seeni doom wallaahi ku ci dof toflu ba sànq sa doom nga jàpp ni fonk doom mooy sa doom bëgg na téléphone nga jëndal ko l'ultimo mooy las sa kiri maanaam téléphone bi mujjee kii ah solu bëgg na ko mini nga jëndal ko mini nga jëndal ko fiso bàyyi ko ci lu ko neex di ànd ki góor di futti ay awraam nekk ci tele yi di mën a wane ay awraam ñuy tudd ay awraam safu ko mel ni bàyyi ma jàppal ni yow waajur boobu responsabilité nga ci say doom fi ngeen yaree doom yéen ñëpp xam ngeen ko gis ngeen ay école ay daara yoo xam ne suñuy daara la ñun sénégalais yi ñu ciy jàngale suñu diine ñun sénégalais yi lu ñu gëm ngeen dugal seen doom ci milieu yu baax ni ngeen di sonnee ci seen alal nit ki booy baax diw baax na mbaam mbokk yaa ko wax na ngeen fexe ba sonnee noonu ci seeni doom ngeen dugal leen ci école yoo xamante ni si dinañ ci jàng mokkal téere yàlla bi bëri na école internat ngeen bàyyi école nasaraani bon yi ngeen xamante ni si nekk fa yàq say doom amul lu muy nekk lu dul uti far ak nekk ci ay caaxaan te jigéen yooyu jigu ko jigéen yooyu jigu ko ay nekk fii di càggatoog di ut farak dugg ci yenn affaire yi loolu dangay ngay sànq sa doom sa doom du sëy sa doom doom avenir bi nga yaakaar bu dee li ngeen jàppee avenir mooy nekk bon sa doom nekk ab model di futtee ko ay taatu neen ci mbedd bi wallaahi yéen a ngi nax seen bopp kon dugal leen seen doom ci école yoo xamante ni sii duñ ko sañ dinañ jàng xam seen dine ñu jàng xam seen alquraanu téere yàlla bi xam waxi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam lu leen ci kaw suuf si te gone yooyu ñoo ëpp avenir téeméeri junni yoon ñoo mën ca école ba ndax gone gu jàng diineem xam fa muy taxawee kooku bu demee ci école ba dana fa ànd ak fulla ak fayda xale yi nga xam ne ay xaafisul quran yëpp la xale yi fu nu dem bac d'office la ñuy dagg laaj leen ko jàngalekat yi dañuy jàng ci kii ba pare dem ci école ba bu buñ fa demee ñooy raw nit ñi ci bac bac d'office bu bu ma ne la seen jàng français bi dañ ciy aay macha allah kon jël leen seen doom yi ngeen financé seen xaalis ngeen jàppale tamit sëriñ daara yi ndax ñi nga xam ne toog nañ yëpp di jàngale pour avenir wala di xeex pour avenir ñooñu rek ngeen bañ cim bëggoo leen lu baax lu bon rek ngeen bëgg kii nga xam ni sëriñ daara yi nga sonn jël ay internat di jàngal xale yi jël xale yi di leen jox lekk di leen kii sëriñ daara yooyu ñoo gën a sonn koo ci dem daaram am problème xool leen exemple imam Alioune Badara Ndao ak turam lépp ngeen xool daaram ba ay gàllankoor yi kese la yeneen ay nit noonu xam ngeen ni ñi ay jàngalkat leen dugal leen seen doom yi waxuma leen ci ay école bokkaale yàlla ak yëfi dof yi leen ko jàngal ay sëñ bi yàlla laak kii laa yaakaar ak jàng ba pare wala teral sa ndey teral sa baay di bayal nit ñi ay tool di yaakaar ay nit doo gëm sa bopp waxuñu loolu ngeen jàngal nit ñi diine waxuma ne ngeen yóbbu leen ci daara yi nga xam ne ay daara yalwaan daara yoo xamante ni si yëpp rek ñoom ñoo ci jublu loolu pour gone yi bu ñu yeewu gone yi bu nu am éducation sëriñ daara ba bu mu tal xale ba na bàyyi xale ba di yalwaan di yàq ci mbedd bi jàngal leen nit ñi pas-pas bu wér seen doom yi yéen waajur yi li leen dal sëriñ si tamit nax leen fooy leen di leen jaamuloo jàngalu leen seen diine même boo jàngee sax yow ba gën a xam sëñ ba sax teewul da ngay topp ci ginnaawam yaakaar ko àdduna ak alaxira te yow ki nga yaakaar àdduna ak alaxira ñaata taalibe yu jàng doon xaafisul quran dégg arab ba pare topp ci ginnaaw sëriñ di la lapar lapari jàngal leen seen doom yi dugal leen ci école yi baax ngeen jàngal seen doom yi ñoo xam diine yàlla gi wallahi am ngeen ci responsabilité da ngay tiit da ngay gis yoo xam ne mais dangay gis nit war a yóbbu nit ci daara ju baax de daara jom xiit diine gu leer lay jàngale ñu war ko fa yóbbu de mais dal la naan bul yóbbu sa doom ci école naar yi ndax école naar yi boo fa yóbboo sa doom dañuy yàq sa doom lan mooy yàq sa doom mooy sa doom du gëm kenn ku dul yàlla mooy sa doom du màggal kenn ku dul yàlla mooy sa doom du bokkaale yàlla borom bi sant da koy teg palaasam dafay roy Muhammad salaa salaam ñu ne la bul ko yóbbu ci genre école yooyu ndax école yooyu dañuy yàq seen doom yóbbu leen ci école yoo xamante ni si après li ngeen produire ay góor jigéen ngeen di produire li ngeen di produire ay simbakatu gaynde ngeen di produire li ngeen di produire ay dof rek nit yi tekkiwu dara ngeen di produire jàngal leen seen doomi ci école taw hit école yu wéri ngeen financé ci ngeen bañ li leen dal dal seen doom yi ndax ku jàng nee nañ jàng day yàq taalibe te dëgg la ndax ak taalibe képp koom da nga koy nekk day fekk sa jàng soru maanaam nit ku jàng nga xam sa diine wallaahi nga xam fi ngay taxawee ndax man mi avant may jàng taali sëñ bi daf ma ko daan wax jàng day yàq taalibe ndekete yoo dëgg la alif lam mim zalika alkitab fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba ma ko jàngee ba dégg ko yow yàlla yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy dimbalikoo ba ma ko déggee loolu rek mooy wane ni jàng day yàq taalibe dëgg la ndax yàlla kase laa jàmm duma taxaw naan jaamu sëriñ diw sëriñ diw jaamu yàlla la du ma toog di jaamu kenn ku dul yàlla kon sëriñ bu yaakaar ma nekk sa jàmm tey nga dee lii kase tax ñu naan leen bu leen jàng wa iyyaka nasta'in yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala ngay dimbali ko doone sëriñ diw dimbali ma sëriñ diw laa yaakaar doo yaakaar kenn ku dul yàlla ak njub maanaam dooni sëriñ diw moo may jubal ihdina siraatal mustaqim yow yalla tek ma ci siraatal mustaqim sama gars yi jàng leen seen diine sëriñ si yeewu leen nit ñi ngeen jàngal nit ñi diine yéen xeex diine gi de mbon mbon gi yépp yéen ndax yéen don doon tere nit ñi téere yu weex yi gis ngeen tey li mu jur buñ waxee ngeen naan bu leen jàng ndax jàng day yàq taalibe moytul leen mi téere yu weex yi lan mooy téere yu weex yi yu weex yi daal ñiy jangale pas-pasu salafu saalih sahabatul kiram ñoo gën sunu baay yi ak sunu maam yi génn tudd seen morom seeni fas pënd ya ak fuuritu yi génn ci bañ ñoo gën seen sëriñ si loolu ngeen ñëw aj wàcce abubakar siddiq wàcce omar bun xataab wàcce aliyen aj seen sëriñ si ba ñu kawe ñooñu pour nit ñi bañ am pas-pas bu wér ndax ku am pas-pas bu da nga dul kenn muy sëriñ bu mu mënta doon nag muy sëriñub ibaadoog muy sëriñub laaye nak muy sëriñu muri ak muy sëriñu xaadir ku mu mënta doon lan ngay toppee sëriñ bi mooy sëriñ bi lim lay jàngal ci yàlla ci diine ga ngeen ànd yaag sëñ ba ngeen jëfee ko sëñ ba bu la bëggee yónni nga da ngay bañ bu la bëggee takk jaam ngay bañ te sa ndey ak sëñ ba lu mu baax baax ku mu mënta doon mooy ibaadu la mooy fu mu mënta bokk mais yow sa ndey moo lay gënal sa sëriñ ndax sëriñ ba lool la li jàngal jàngal la li yàlla wax ci waajur bul ko yuux na ko teral waaye nit mën a toog ci bàyyi jàmbur bu la defarul dara juru la ndey ja ëmb la nga dem mën a toog raamal baayu jàmbur booy wax sa kàddu suufeel ci baayu jàmbur su baayu jàmbur lum la laaj loo xam ne si sa ndey la gën a yeyoo nga dem jox ko ko bu la ne woon léegi léegi léegi demal indil ma million léegi nga dem màjjaali dem indil ko million te si sa ndey sa baay la loolu dañ lay jàngal ne loolu ci sa ndey sa baay la gën a mérito ba sa ndey sa baay nga koy defal lii moo tax dugal ngeen fi ay chimique ndax yéen ne yéen jàng yàq na taalibi benn éducation yu bu njëkk bi li nga xam ne ca base ba la allah ci Moustapha Gaye ba mu fi nekkee di leeral tawxiid ba mu fi nekkee di wax ay waxi dëgg da ngeen ko doon diaboliser di ko waaj a koñ ak lu nekk ngeen wax sëriñ si di ko di ko mbamb dàqalu ko ca télé ba ba ba mu wàññi ba changé moom it ñëw ànd ak ñoom ngeen xool tamit kii Taib soose ay temps mi ngi fi doon di tàngal di wax diine di wax tawhid ay menaces la doon am da ngeen koy dégg sax mu ngay wax maa ngi di dama entraîné ji woon am na ku ma kocc lii xam ngeen ni Sénégal dëkk la boom dëkk ko tappale yéen a produire lépp bon li fi amoon sëriñ si fi nekkoon démb di xeex ñu ci bari si ñoom dee nañ di xeex tawhid di xeex alquran ak sunna di xeex kiy jàngal diine yéen a produire tey nit ñu bon ñi am fi moo tax ay nit mën a toog ñu naan comme ñu mel ni Omaro ñu ne kii kat maanaam ci jàng lañ ko xamee ci ay way lañ ko xamee mu ñëw di produire ay góor jigéen ay waykatu góor jigéen ay lu nekk ci góor jigéen ay sàcc yoo xamante ni si maanaam ñoom jàpp nañ ni texe nañ yéen a produire sàcc yéen a produire mbon ñun ndaw ñi ñun ñu fekk suñu jamono jii nañu ragal yàlla borom bi subhanahu wa taala ñu jàngal suñu doomi diine ñu jàngal suñu doomi taw tawhid ñu xamal leen ni dunduk àdduna gi kat du kër ñu xamal leen ni lii nii nit ñi di wax ni ay fen la ay yowmal xiyaam nekkal góor jigéen sàccal wayal futtil sa awra demal ci tiktok bi def lu la ne koo ci gis sëñ si rek la ñuy waatee koo ci gis sëriñ bi la yaakaar ndax jàpp nañ ni ñoom li leen gëm loola jàpp na ni ñoom sëñ ban àndal rek texe nañ motax waluk alakhira ñom dañ ko jël tek ko côté légui ndax fofu mom rek na ba pare légui nek ci aduna bi lu leen neex ñu def yéen gi sank sunu doom yi yéen ya yaa ayyuha amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sama gaay wal asri innal insana lafi qusr yàlla bamu giñé ci jamono jiñ takusan mu ne doomu aadama bi illa lazina amanu bamu dess ñi nga xam gëm nañ moy ñu gëm li ñi wax ni gëm alquran yàlla bi gëm dunduk barzaq gëm dee gëm dék gëm ñu kut bàyyi sa doom mu torox nekk ci ay caaxaan comme ni ko yàlla waxe yaa ayyuha lazina amanu qu anfusakum gis ngeen illa lazina amanu wa amilu salihat yaa ayyuha lazina amanu gis nga amanu gi moo ñaar foofu de qu anfusakum waaw da ngay gëm loolu illa lazina amanu ngeen fegal seen doom seen bopp safara wa ahlikum naara ngeen fegal seeni njaboot safara gis nga mu ne illa lazina amanu wa amilu salihat ñuy jëf-jëf ju rafet jëf ju rafet mooy lan mooy li la yàlla digal paa li la neex paa li la neex nekk fii naan damay joxe ñam tax duma ma julli du ma woor damay man li may def ni maa ngi dimbaliwaate xool loola neex def ko ni nga ko sentiré ne maanaam lii mooy diine gi maanaam amelu salihaat mooy ndigal diine lislaam doon ndigal ak tere la la yàlla digal nga def la la yàlla tere nga bàyyi watawaasaw bil xaq ñu déggante dëgg comme raayate ñu leen jam nii muy daggate seeni xol ndax raayat dëgg day daggate seen xol ndax ki sol caayam courtier bi sol caayam sol mbaxanaam naan jaami ilal duxuli janna nga jël ko teg ko fu rëy alquran xam ni kii ay kasaw-kasaw lay wax kii def leeni nax yàlla xamal leen lii bokkaale nga ñëw di ko wax sëñ ba moo rëy ci yéen ñu ne oh Médoune day diŋat sëriñ ba léegi nag menaces yi day ñëw saaga yi di ñëw xaste yi di ñëw watawaaso bi xaq kon watawaaso bi sabr kon boog nañ ci ànd ak muñ sama gars yi ngeen ragal yàlla borom sant la jàngal seen doom yi wallaahi gone yaa ngi yàqu youtube bi boo fi duggee da ngay tiit ay jigéen nan lan mën a wuññee seen awra ngeen xam ne jamono ñun ay temps sax temps boo yooyu da ngay gis benn gel bu sol mulaante maa ngay fàttali ko suñu koñ bu sol mulaante ay fiso fiso laa la wax naan caaga caaga caaga mais léegi sama waay waxuma la fiso jigéen sili bu kase nga sol ko di dox ci mbedd bi mën a wane say awra ci contrôler leen seen doomi ci youtube beeg ci facebook bi nan nga leen di contrôler seen doom mooy na nga leen xamal ni am na kiraaman kaatibiin ya'lamuuna ma tafalun am na bindkat bu nekk ci kaw asamaan am na bindkat ñaari bindkat yu yàlla booleeg ñun ñooñu dañuy bind lépp loo leen jëf te yowmal xiyaam dinañ leen ko àtte loolu bu ngeen ko defee ba xamal doom yi doom yi duñ xool sa sama papa mi sama yaay moom gis mais ci diine ndax am na xale fu muy yaroo lan lay xam muuru école yi bëri na école yoo xam wallaahi sa doom bu fa nekkee sa doom bu dee jigéen la day muuru xalaatut yenn yi xelam xalaatu ko ndax jullit la day nekk jullit xaqan mokkal alquran di dund sunnate muhammad salaa salaam ngeen gis école yooyu nekk fi ràpp ni yàq ba naqari naan ay école yu ibaadoog ay école yoo day yàq pas-pas ak dañuy contre mag ñi bàyyi leen seen tappale yi seen caaxaan yi dama ni leen maam jaara ibaadu la woon maam jaara buso maam jaara buso da doon muuru maam faa wax di wele ibaadu la woon da doon muuru jigéen ñi muuru leen teg muuraay seen kii bii te jàpp li ngeen jàppee ni baax mooy ay patriote patriote lu wala benn affaire naa jël xaalis def Sénégal naa dimbali miskin jigéen boo muurut boo dee am problème muuru ji leen ngeen jaamu ji yàlla mbir mi yàlla dafa ne xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dafa bind dund mu bind dee ba pare nag di xool di la nattu maanaam kan moo ci gën a rafet jëf nattu bi mooy lan mooy jaamu yàlla gëm la teg yow jigéen bi solfiso moo la neex ñàkk muuru moo la neex yàlla nattu la ne la man de li ma bëgg mooy muuru laa bëgg nga teg sa kaw damaa bëgg sa baat nga koy suufeel damaa bëgg nga doxee nii di la nattu ci loolu ndax yow gëm nga ko wala gëmuloo ko di xool ndax da ngay bañ wala wala da topp sa bakkan wala seytaane ngay topp yéen ñi muuru saytaane rek ngeen topp bu gaa yi defoon ni man yaakaar naan jigéen ñëpp dinañ muuru ndax ko muuru du ma la takk du ma la sa xool jigéen ñi tooy xale yi baax yi mooy xale yi muuru jigéen day muuru muuru ji leen ab doom bu day muuru toog fii topp sëriñ si rek bu ñu waxee génn naan ay muuru leen te sëriñ sa créé yoon yi sax ñoom dañ doon seen soxna yi dañ daan muuru ak seen doom yi lii yéen a ko créé bàyyi leen seen tappali yi ñu ngi ci mujjug jamono ah oui salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh maa ngi gont yi